ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen siyaar ñu ngi leen balu di leen balu noo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yal yàlla boole jéggal mu am mbir mu ñu laaj nag mbir moo xam ne kenn mënul jeexal solo yi mu am muy mbir mi tuddee gàmmu gàmmu tur wi ci aada aada la waaye bu ñu xoolee jëf ji ci biiram lépp sunna la li aju ci gàmm laa tuaddu wala tuxsha kenn mënu koo lim kenn mënu koo takk ndax booy xool ay mbokk yu daje rawati nañu ay mbokki jullit njëriñ ba ca nekk ak li sunna santaane ci mbokk mu jóg di siyaare ji mbokkum jullitam li ci nekk ci ay njëriñ kenn xamul lu mu toll li ci nekk ci jokk ak mbokk kenn xamul lu mu tollu ndax gàmmu rekk ngay gisee sa mbokk moo xam ne gëj ngeen a gisee wala sax boog leen a gise te ngeen xamee te ñu xam li yàlla santaane ci jokk ak mbokk bon gàmmu rek moo mën a tax ñu mën a mot matale mbokk googu ñuy jokk koo xam ne yéen a bokk ci deret rawatina ngeen bokk ci lislaam donte yéen a bokk dëkk bi sax seen a gëj a gisee gàmm rek moo ko mën a dindi bon nag lu ñu doon waxee gàmm njëriñ yi nekk ci biiram kenn mënul jeexal njëriñi gàmmu bon daal ci leen leen di wax ci gàttal rek loolu ay njëriñ la ci gàmmu ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci rawatina luñ tuddee nag màggal juddi rasulillahi sallallahu alayhi loolu jar na daga paas mel ni kuy siyaar ji rasulillahi sallallahu alayhi wa ndax moo ne man saara aqal muslim ka annama saara nii ku siyaare sa mbokkum julit mel ne na siyaare nga ma te siyaar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ak texeeg àllaaxira yàlla ñu ko yàlla nangul. est que mën nga delluwaat tuuti si jàngale bi Seydi El Hadji Malick si doon def ci guddi gàmmu. xam naa jàngaleem El Hadji ci gàmmu lu yomb la su ko nit ñi déggee daje di tudd yàlla loolu. ci njàngaleem maam Alaji Malick radiyallahu taala anhu ci li mag ñi nettali ak li mu bind li mag ñi ñoo ko nettali ñu dégg lii moo ko bind ñu gis ko nee na màggal juddu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam buñ ko defee ca defuñu ci lenn lu araam loolu la ci santaane santaane wu ci nag lu dul ñu def ci loo xam ne ak jaamu yàlla la jàng alquranul karim wala ñuy tudd yàlla loolu la ci santaane te mooy màggal rasulillah sallallahu alayhi wa guddi nga xam ne moom la ganee àdduna njàngaleem maam Alaaji Malik radiyallahu taala anhu lépp dafa dëppoog sunna lépp dafa dëppoog alquranul karim bon gàmmu turwi wi la nit ñi jàpp naan bidaa la waaye jëf ji nga xam ne moom la ci maam Alaaji Malik doon def lépp kitaaballahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom la ko doon defee. ren ñu gis ne thème bi ñuy gën a fësal mooy si euh, situation xale yi muy ndongo daara yi ñu bëri jël exemple ci école yi Cheikh El Hadj si doon def fépp ci Sénégal ngir tàggat ndaw yi si si si jàngu alxuraan ñu gis ne jamono nag loolu xaw na yàqu ndaxte ñu bëri ñu ngi naan xale yi léegi da leen di gën a exploité tey est-ce que mën nga waxaat ci loolu sa gis-gis. waaw njàngaleem maam El malik Malick jamono yi ñu tollu dafa nekkul lu ñu dégg dafa nekk lu ñu gis képp ku ne la rek kii muqaddam maam El Hadj Malick la waxuma la sax muqaddam maam El Hadj Malick ñu ne la kii xa muqaddamu baaba Babacar si radiyallahu anhu waxuma sax sëñ Babacar si ñeneen ñi nga xam ne topp nañ ci gannaawam ñi jaar ci seeni loxo ñu teg leen bët ñooy exemple réew mi lu fi baax ñoom la bon nag. su fekkee dañuy laaj njàngaleem maam El Hadj Malick radiyallahu taala anhu nañu xool ñi nga xam ne jaar nañ ci daaraam da daaraam mooy yar leen jàngal leen diine teg leen ci kitaab ak sunna loolu mooy njàngaleem El Hadj mooy daara maam El Hadj bon su ñuy wax daara yi daara yi kay xanaa ñoo juddoo neneen nu dul roy maam El Hadj Malick waaye bu ñu doon roy jàngale maam El Hadj Malick radiyallahu taala anhu bon lu dul lu dul daara daaraa ku gën. est que xale yi ñu leen di bàyyi ci mbedd bi ñuy yalwaan te duñu jàng alxuraan yi nga xam ne loolu moo waroon loolu ñuy créer ay daara est-ce que tey jii nii loolu yoon la état bi di seetaan loolu yan mesure lañ ci war mën def pour xale yi delluwaat ci xam ne daara euh, école la bi nga xam ne dañ ci war a jàng xam waaw xale yi ñuy dajale bàyyi leen ñuy wëreelu di yalwaan mënuñ leen tuddee lu dul daara waaye loolu du daara dajale xale ñuy wër di yalwaan loolu du daara. daara mooy ñuy jàng alxuraan ñi leen di yar ci jikko lislaam loolu mooy daara jëmmi nag yelwaan façon la boo xam ne bii mën nga ko tuddee ne ñaari anam la ñiy def di yelwaan di wut lu ñu am bokkule ñiy def di yelwaan di wut lu ñu dundee ndax yelwaan pour loo dundee mooy laaj rek laaj te alxuraan ko wax waa macha allah alxuraan ko wax ñiy laaj. ñii laaj te laaj mooy lan laaj mooy yelwaan ñii laaj ñoo yelwaan te ñuy yelwaan dañoo néew doole moo leen tax ñuy laaj waaye fekkee nag damaa dajale ay xale man jàng lu leen di leen yelwaan loo loolu sharia santaane wu ko sunna santaane wu ko yàlla santaane wu ko nit ñi baax ñu santaane wuñu ko jëmmi na xale yi nekk ci daar ji di jàng alxuraan ñu ne leen dem leen ngeen yelwaani te la ñuy yelwaanee lu ñuy dundee la loolu moom dara nekku ci waaye yelwaan boo xam ne nag dangay ngay xëy 6 heures ci suba ba 6 heures ci ngoon loolu kenn santaane wu ko ku koy def it da ngaa def loola neex rek da ngaa tuddee sa bopp daara waaye nekkuloo ci daara danga ngaa nekk ci loola neex loolu nag a ah, moom eh, buñ daa laajee ñi nga xam ne ñoom ñoo yor daara yi xam nañu ñi nga xam ne ñooy taxawee loolu ak ñi nga xam ne taxawuñu loolu jëmmi gouvernement bi nag wax jim ciy wax su bëggoon a xam lu leer dëgg dëgg ci jaar day dem ci. ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine yi ñu wan leen xamal leen lan mooy daara ñu topp daara yooyu lu ci war ñu def ko leneen lu dul loolu nag ñu jëlee ko fi. nag mooy li ñu waxoon léegi rek li ci maam El Hadj Malick digle woon màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi mooy ñëw fii di jàng alxuraan wala ngay tudd borom bi subhaanahu wa taala wala def say salaatu ala nabi képp ku def leneen lu dul loolu. defoo li tax nga war a ñëw Tiwaawoon Tiwaawoon moom ku fa ñëw ku nekk li ñu la rek mooy ngay jàng alquranul karim wala ngay waxtaane nit ñi ci seen wàllu diine wala ngay waxtaane nit ñi ci seen wàllu rafetalante bi nga xam ne moo war seen diggante suñu xamee loolu rek gàmm nañu suñ defe loolu gàmm nañu suñu xamul loolu gàmmuwuñu suñ defee loolu gàmmuwuñu bon dama koy tënk tënk rek ci aay bi borom bi wax ne wax bu dollaaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bisil qurbe wal yataame aay bi soo koy jàng ba fa mu jeexee nga xam ne lépp borom bi subhaanahu wa taala dafa santaane ñu jaamu ko dafa santaane ñuy rafetal ci suñuy diggante rafetal googu nag amul fenn fu mu amul fépp la rafetal gi am daa am fu mu ko njëkkee rek ba fu mu ko mujjee wa maa malakat aymaanukum ñi nga xam ne ñi yéen a yor seen responsabilité moo xam service ba moo xam keneen la ku mën a doon nga di ko liggéeyloo del rafetal ci moom bul wax ne maay borom doole ji maay borom sañ-sañ bi del rafetal ci moom loolu la yàlla sant bon yàlla bawul kenn ci lenn ciw melakaanam woo xam ne bi waroo toll foofu di rafetal ba ngay dund ba fi ngay faatoo lépp yàlla da laa sant nga di rafetal bawul kenn nag ni mu ko waxee rek ndey ak baay mbokki jege ñaale ah jirim bi miskin bi ki nga xam ne yéen a ànd sa sa yéen a tukki ki nga xam ne yéen a dëkkandoo ki ak lu mën a doon rek dëkkandoo bi jege ak dëkkandoo bi sori ak responsable bi nga yor ñëpp yàlla da sant nga rafetal ci ñoom. jëmmi Tiwaawoon moom Tiwaawoon la leen ku fi ñëw rek yaa ngi Tiwaawoon waaye dafa am nag kenn fu nekk mu am péete te péete mooy lu ñuy ñàkk dafa am jëmmi nag li nga xam ne lii moo jógee tund Jolof ci dëkk yi nga xam ne. a ah, nun fa la ñuy waxee lu demee ne ki xooxool ak kaaji ba Linguère ak dëkk yi ko wër yëpp dañu am fii ñaari dal yoo xam ne fi la ñuy dal benn bi ki nga xam ne mooy xalifa ba moo fa nekk beneen bi mooy kër gi fii fii ngeen ñu fekk ñuy wax mooy alaaji tafsir daawuda ñang di këram tabaarakallah macha allah yaatal ñëpp xatalul kenn arul dara manque wu fi nekk dara manque wu mboolem ku fi ñëw rek xam nga ne lépp coono def na ko ci ci wàllu teral gan yi waaye nag mbokk yi nag bokk ko ak moom jàppale ko ci anam bu nekke nag bon ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla yàggal ko fi tasaxal ko yàlla yàlla barkeel ko barkeel njabootam ñi fi ñëw itam yalla yàlla barkeel leen barkeel seen njaboot sallallahu alayhi sallam